siwaat ak askan wi rek fàttali leen numéro bi mooy 88 628 09 09 88 628 09 09 waa Sénégal bu dee waa bitim réew ñu ànd ak ci ñun ci 00 221 33 869 83 92 00 221 33 869 83 92 incha allah euh, lu ci waay yittewoo boo ànd ak ñun ci numéro yooyu incha allah dinañu ci indil ay leeral. waaye daal dañuy bëgg farataal di wax ni daal xañ abdullah eh, am na mbir yoo xam ne yii boo koy farataal di gis nañuy na wax naan lu ma gént gis ko su dee góor nag góor góorgóorloo taxawaayam ci wàllu ibadat wàllu jaamu yàlla ak yàllu zikr wàllu wird ak yi mel noonu yàlla dina ko gën a dolli yaqin fi xaalihi ci ay mbir boppam waaye balaa ñuy sori xañ abdullah ñu jël ki ci ligne bi te ñëw asalaamaaleykum wa waaw ah, soxna si bisimilah. maa ngi wootee si waaw. waaw bisimilah. dafa am gént mu doon laaj. Hmm. Hmm. damaa gént benn bés dënnu dal ci sama kaw. dënnu hmm? dal ci sama kaw. dënnu. waaw léegi bi mu dalee ci sama kaw. sëñ Salim Mbacke dem si àll si. waaw soxna si. waaw. doo wàññi tale bi tuuti ñu déggante. waaw waaw wàññi na. waaw bisimilah. diggante dënn sama kaw. Mhm. léegi sëñ Saliou daal ci yem. Mhm. daal di bind benn perkaal ba mu fees ak alxuraan daal na koy sàng. Mhm. léegi nag nit ñaa ngi ma ko wër nit ñaa ma wër sama yaay moom mi ngi naan alhamdulilah di ko sëñ Saliou indale perkaal bi alxuraan ba mu fees sàng ko. li ci des ma gént mu gane si ma. li ma gane dénk ma saag bu ndaw bi mu yoroon. léegi ma dénkee saag bi. daal di toog ci buntu këram ni ma tàllale ma ñaanal mhm. mhm. mhm. la yow bis booy sëy man maa may ma ne ko bu soobee yàlla. ma koy gunge ñu ñëw ba ci buntu këram noonu benn téere bu mu gas ba mu ko daal koy suuf ni ma maa ngi dem. ànd ba gaaraas léegi saag bi mu joxoon maa ngi ko yor. ma yore saag bi ma ñëw ba gaaraas cette place bi moom dong moo ci ma gëstu na ana sëñ Saali bi ma doon gunge bu may tàllal loxo daan may bàyyi saag bi bu may jëlal saag bi téere. Mm-hmm. bi ma ko téye ay fan noonu ma géntaat tamit gis ko ci weer weer baa ngi leer nañ ma koy wax sama yaay mm-hmm. bi ma koy wax sama waaw shukran ala kulli xam naa ligne bi moo xaw a waaye su ma nee duggaat it àggale li muy laaj mu ala kulli xaal day gën a am solo uh, xajam neen dafa gént dënnu dal ci kawam mm-hmm. mm, gis nga nag xajam dënnu bu jegee dal ci kaw jigéen Euh, dafay bari aanal lu muy yaakaar ne musiba la wala jafe la waaye xéewal buy ñëw ci moom la rek nag euh, du dënnu du lu koy gaañ du lu koy lor mhm. ndax xam nga dënnu xañam dara xajul ci doomu aadama waaye ala kulli bu jógee mina samaai ilal ard jóge ci asamaan ñëw ci yow wërsëg wuy jóge fu sori la di ñëw ci yow muy yiw wu bari ñaareel ba ñaa mhm. a sëriñ Saalix Mbakke fi l xol nee na gis na Serigne Saalix mu ñëw mel ni ko koy xettali ci biir gente gi mm-hmm. muy ñaari yiw euh, xayray ni fil xol mi ñaari yiw yi tegaloo ci moom euh, beneen bi it nee na gént na Serigne Saalix di ànd ak moom mu nee ba war a oto ci biir yoon wi ci la ko réer mm-hmm. euh, ru'yatu saalihin wal awliya qulna zalika miraran wa man raa saalihan aw waliyan min awliya illahi al fa dalika yadullu ala fatxin wa yusrin wa najaaxin fi xayaati al bu mag ku yàlla sellal yi bu bëri lay jur aaju gu faju la ci mhm. zaahir ak ci baatin xamdulillah eh, tafaddal dañuy ñëw rek ci laaj boo xam ne am na ku ko fi laaj ci wàllu ismu jalal nee na ci liggéey mhm. te yenn saay saay bu noppee dafay gént ay gént yu yéeme yu doy waar mhm. muy laaj loolee yan tegtal nga ko ci mën a indi ak loolee mi wér di yan ngëneel ak ban yoon la ci mën a jaar ba li mu ci bëgg daal ko ci am. Euh, shukran ya Cheikh Abdallah wa xam nga xañ Abdallah ismu jalaal euh, ne nit ñi dañuy bari lool luñ koy faratal di wérd. Mhm. ismu jalaal nag borom ahlul asraar ñi xam yoon nee nañu dafa xaw a tàngi mbir muy ahaman saxakun halaan yasun mu am ñu dem sax ba di ko tëggee ci aoudu billahi min charri al ida abadan wa charri ma nafadu wastawdauna qada habli alayhim mhm. bi nasrin gayra munsalim ka nasrika al anbiyai kullihim ala al aada gis nga ahamun sax kon xalaan yasun muy ismu mhm. euh, su fekkente naal nit ki da koy liggéey na ci yemale rek 434 doy na ci sëkk su fekkente ne da nga ci bëgg am yoon bu baax te du la sonal liggéey ko 434 am na solo waaye balaa ñuy sori dina ñëw léegi ci ñaan bi nga xam ne moo ànd ak moom ismu jalaal pour ñu koy liggéey xam fu ñuy teg seen tànk am na solo waaye ñu jël ko ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay ziar bu baax naka yaram. alhamdulilah. damay laaj ñetti gént rek. Hmm. Hmm. benn bi dama gént weer wi. Hmm. ñu wàcce ko sama jëf yi quoi. ñu wàccee ko. ñu wàcce ko ba mu tolloog sama jëf. après benn sàkk ca dox sama diggante ak moom. waaw léegi nag beneen gént bi dama génn ay dàll yu sarax sarax yu bari. ay dàll kii dàll kii plastique plastique yu weex. plastique. waaw yu weex. Mm-hmm. waaw ñu teg ko nag léegi nag man maa ko ut nag yu bari nag léegi nag xuma mm. ma gént ko si gént daal maa ko teg si oto bi nii après ñu teg si magasin bi di ko xool. Mm-hmm. waaw deuxième gént beneen gént bi sama papa dafa génn àdduna mais moom laa génn mm, ma yor ay mango de ko sama kos bi ma soloon ay mango. mu génn mango yi nag di eh, benn mango bi la xar si digg bi après jox ma yeneen yi nag. beneen gént bi dama génte ay eh, lu mel ni ay ay ay ay mbët ak ay jaan ak ay jaar ma séen leen rek daw. waaw yooyu laa géntul ko laaj. jërë ngeen jëf. shukran jërëjëf ala kulli xaal ci indi ay bayaanaat léegi waaye balaa ñuy ñëw ci moom xaaj Abdullah eh, dañuy wax borom ismu jalaal bi. Mm-hmm. ne ko buy wërd ismu jalal daal alal asax ci li gën a gàtt te gën a neex a lijjanti mhm. mu bañ a àgg ci yen lim yu sori yu rëy na yem ci 434 muy ismu jalal di ahamun saakon xalaan yesun comme niñ koy waxee ah, beneen bi it na ci boole ñaanuk boppam ñaanuk boppam muy ismu jalal muy allahuma inni asaluka mhm. bi alifi uluhiyatika ya allah wa bi haai hidayatika ya haadi wa bi mimi mulkika ya malik bi sini salamatika ya salaam wa bi qaafi qudratika yaa qaadir wa bi kaafi kifayatika yaa kaafi wa bi xaaya xilmika yaa xaliim wa bi laami lutfika yaa latiif wa bi ayni ilmika yaa aliim wa bi yaa yimnika yaa yim saadi samdaanika yaa samad kooku mooy alal asax duaa ismu jalal lilladina yaarifuuna hada duaa dafa am solo mu yemale ko nag di ko def onze marra fukki yoon ak benn baada zikri ginnaaw mu pare ci ismu jalal boobu waaye ismu jalal nag xayamdullah day mbir moo xam ne bi Euh, su doonte dañu dama koy misaal ci tenk dama lay wax ni suufu joor la boo xam ne bii am na commencement waaye amul jeexukaay. Mhm. bu ñu nee suufu joor mooy bërëb bu yaatu boo xam ne bii mën ngaa wax ne fii la commencé waaye doo xam fu mu yem ndax euh, ismu jalaal li mu ëmb dafa bari te lépp kenn mënu ko tudd lépp kenn mënu ko wax. waaye ñëw ci ki nga xam ne kii xaj Abdallah moo laaj laaj bi léegi nee dafa gént euh, xaj Abdallah weer wàcc ci kawam. Mhm. Euh, nit nag bu weer wàccee sa kaw donte sax sa àlloo ci wàllu quran soriwul waaye dama lay digal nga sax ci yi may bëgg a wax mhm. nga yokk say jaam say naafila di yokk say zikr di yokk istixfaar muy astaxfirullah di sellal di teg say mbir ci ne ko ci yoon Euh, di bari zikr muy tudd yàlla di bari naafila di waxtu yi juróom nga di ko bàyyi xel mhm. euh, di jàng quranul karim di saraxe di def lu baax ndax yàlla mën na la ci ubbil baabul xayri muy buntu ngëneel mhm. kon li loolu dafa am solo amaa nag li ci des mooy plastique bi baaxul mhm. plastique dajale ko maa fi xayr yu addi ila soba day indi ay xat-xat euh, beneen bi ci tegu it nee gis na papaam raxala ila jiwaari rabbihi munzu xadimi zaman gis na ko ci gént mu di ko jox mango mhm. uh, ak yeneen yi ca topp waaye ci li gën a gàtt daal ci tegtal gis sa waajur bu génnee àdduna la lay bàyyi loo xel ci njaboot gi nga sàmm li mu fi bàyyi woon ak ndenkaay yi mu fi bàyyi woon wasaa yaay yooyu nga di ko bàyyi xel di ko toppatoo ndax